العالمين خلافة ملكية حلى آدمي خلافة ملكية متى أدركتنا زمان بلية وجئناك نشكوى نفوس صجية سخطنا مرارا رأى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جوليني بوكي سنغال نيونغي لين دي نيو دي لين نيو في تي تيانابا تي دك بو تيد بي دكوب سيد المجاهد مام أمري دك سك ku جستاي gis tay ñuy nga bayiwaat ci taarix bi ñu nekk dina am lu sa xel dem te nga xam tuuti histoire Sénégal dina am fu sa xel dem le 11 février saa su ñëwatee rek te nga xam taarixu Sénégal sa xel war naa dem ci sàmba Sadio mooy xare boobu nga xamante ni maam Cheikhu Amadou maam Amari ndaag ñoo ko àndoon ngir taxawal lislaam bi li ko waraloon mooy euh, maam Amari Ndaak mi nga xamante ni moo demoon wuy ji maam Cheikhu Amadou ñuy jihaat ba àgg Samba Sadio maam Amarinda borom xam-xam la woon ndax kajoor la ne woon di sëtu dammeel waaye jàng alxuraan ci loxoy waajuram ba wattu ko teel ko wattu lool maam Masoud moo doon baayam ñu koy wax maam Masayer maam Ndaak Faal moo doon yaayam maam Ndaak nekkoon ku ku man alxuraan nangoo jaamu yàlla guddi mu jàng ci loxoy baayam ba wattu alxuraan dem ndar jàngi xam-xam jóge ndar. continuer Mauritanie ci dëkku maamam ndax maamam gànnaar la jóge woon shérif la maam Amari Ndaak maamam gànnaar la jóge woon ñëw fi mu dellu jàngi fa xam-xam ci ay fànn yu wuute ba bu ne mu géeju ca ñibbisiwaat Sénégal nag ñëw Kajoor ci dëkku maamam mu baasewu fa di fa jàngale di fa yare ah wuutu baayam nag ci daara ja di jàngale diggante boobu muy jàngale nag ci la ceddo yi doxe maam Cheikhu amadu ginnaaw lak taal këram jël ay téeréem sànni ca dex ga salfaañe tooñ gu nekk rek ñu ñu tooñ ko maam Cheikhu amadu ah léegi nag euh, comme yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul ida daakum li ma yuxyikum yàlla nee na yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla wuy ji leen woote bi yàlla bu ñu leen woowee ci loo xamante ni dina dundal seen diine maam Cheikhu amadu bind ay lettre tasaare ko ci kàngami yoon yi maanaam ñi nga xam ne diine lañ doon woote te nekkoon ci réew mi leetar yooye dem nag ca kàngam ya am na ca bu dem ca maam Amari Ndak kajoor la ko fekk gawar bi demoon fekk ko kajoor jox ko leetar bi ba ko maam Amari Ndak jàngee leetaru maam Cheikhu Amadou Ba bokku na ca ñu ñu xam ni maam amari nag moo magoon maam Cheikhu Ahmadou waaw ndax na mu ko woowe yow sama mag la ko woowe bokk na ca li ñu xamal ni maam amari borom xam-xam bu wér la la ko maam Cheikhu Ahmadou wax ca leetar ba wa lima samiatu minka min al ilmi kon ñu gis ne xam-xam la feese woon del moom maam amari nag waaye nag lam ko tëje mooy in uridu illa al islaax mastataatu maam maam Cheikh Amadou wax ni bëgguma lu dul defar defar rek moo ma tax a moo ma tax a jóg laal fasaada yàq taxu maa jóg daal di jàng aaya ba tilka daarul axira ah maam Amari Ndaa ba mu jàngee leetar ba ba àggal la dajale taalibe yi ni leen yàlla woote na de dama koy wuy ji kenn ku nekk réew mi yaana fu waaye xamee fu mën a mot liggéey àlliwoom na dem ah daa di jël maam maam maam jëmb ak ab saatu ñu aw yoonu jandeer yabal leen jandeer ñu dellu ah jël maam aminata mbuub mu dellu ndar moo doon soxnaam maam momar taala la amoon ci doom ju góor mu jël ko dénkaane ko tawa ay waay xoolal lii ni mu dawee yaram war a jàmbaar ju toll foofu ni ko nit ñi bëggee xam-xamam ni ko nit ñiy jariñoo bés ñëw yàlla woote nga xam ni ci jàmmaarloo nga jëm ci ay noon yoo xam ni dañuy bañ ku tudd yàlla dañuy bañ ku julli dañuy bañ ku woor dañuy bañ ku wooteel diine islaam nga war a jóg jàmmaarloo ñoom te ay bal lañuy yor ay ngànnaay lañuy yor kon sa bakken nga jël jaay ko ngir lislaam bi taxaw ma ni boo xoolee njàmbaaru maam Amari a ngi noonu xool ko rek alal ni mu neexe doom ni mu neexe ba kenn ni ko nit ñi mën a man a mën a toppee bu ci nekk examen nañ ci maam Amari Ndaag réussir na ko parce que jël sa doom wan ko ginnaaw jël njaboot wan ginnaaw mbooloo nga jël ne wan ginnaaw alal dëkk ba nga ba nga nekkoon yilif ko di ko àttee nga wan ko ginnaaw ngir wuy ji woote bi yàlla keroog wax nañ ni maam Amari Ndaak bi mu waajee jóg ba war a wuy ji maam Cheikhu Amadou bi mu solo ba pare xaatim jéggi xaatim ba ak tànku ndeyjooram jooram dëgmal naaru góor wa mu war a war ngir dem wuy ji maam Cheikhu Amadou kajoor kenn attanatu ko ñépp a ngi jooyoo góor ak jigéen mag ak ndaw waaye tàllal seeni loxo naan yàlla yàlla nag ñu aaral maam Amari Ndaak ba delloosil ñu ko fii ci sunu dëkk bi kon loola daw tàggoo boobu daw na yaram lool mbokk yi ngeen gis ni jàmbaar a ngi noonu di dem mu dem nag wuy ji maam Cheikh Amadou ñu ànd keroog bi mu àggee bi mu àndeek maam Cheikh Amadou bi àggee ci maam Cheikh Amadou nuyoonteeg moom na mu ko nuyoo ci la ñépp xam ni jàmbaar dikk na maa mën daa borom njañ la woon solu yor fital ga kaalawu bi mu jubee maam Seexu Amadu daa teggi fi daa dindi fital gi teg ko na le ni ko kii taxulaa jóg tàggoo kaala ga nga gis njeñ la di fay fay mu sukk ñaari bëti woomam maam amari cëy ji orma noonu la ko professeur Souleymane Dia binde raam nag wuy ji wuti maam Seexu Amadu bi mu demee jox ko loxo foon loxo bi ci biir foon loxo bi ci biti wax nañ ni dañu ko yaasiin wal quraanil xakim innaka la min al mursalin ala siraatin mustaqim nga gis ni aaya ba la mu ci junju maam Cheikhu Amadou mooy xamal ko ni ko yow kat sunna si yonent bi rek ngay doxee alquran nga doxe ak sunna si yonent bi woote bi nga woote xam gu ma xam ni yaa ngi ci yoon wu jub xoj ala siraatin mustaqim yaa ngi ci yoon wu jub xoj lolo tax ma ñëw ànd ci ak yow wuy wuy si la maam Cheikhu Amadou téye loxo ba ni ko laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul xasbiya allah allahu akbar junjuko nak nag ni ko ni nga gëme ni wuy si bi nga wuy si kuy dundal sunna si yonent bi kuy woote lislaam moom ngay wuyu si jàppal ni yowit alal ji nga wan ginnaaw nit ñi nga tàggoo tàqalikool ñii dem ñii wan la ginnaaw ñii dem jàppal ni yow doyloo gi nga doyloo yàlla ci la la yàlla joxe ëllëg lépp loo xamante ni mel na ni da nga ñàkk ci jamono bii ñu toll waaye loola maam Cheikh Amadou seede woon ku nekk gis na ko bu dee mbooloo am na ko bu dee dëkk am na ko bu dee njabootit it fa tabaarakallah yàlla mayaat na ko maam amari ndaal ñu ànd nag ca jihaad ja jihaad ji nettali ko taxuñoo jóg waaye fàttaliku bés bi rek moo ñu tax a jóg ñu topp ak jaar-jaar yi ñu jaar xëy war a dem tooro ca mbettum njëkkiw ca la amee ba ñu xëyee la ca xew lépp gis nañ ko Hamdan Hafiz ma nga xamante ni moo doon généralu guerre ba moo doon imaam ba bi ñu demee ba euh, àgg njëkkew ca lañ ko faat mu tëdd ak soldaar su bari bañ ko faatee ci la maam Seexu Amadou joxoñ maam Amari Ndaak mii door a ñëw ni ko yow yaay imaamu jihaad ji mu jiite jihaad ja noona la continuer ba àgg sàq sàq ca la amee jëm jamam bu metti booba waaye taxu ko bàyyi continuer continuer ci xare yi ba àgg ci Samba Sadio gii nga xamante ni moom moom lañ defoon la Euh, le 11 février 1875 Samba Sadio booba ca la maam Cheikhu Amadou tàqalikoo maam Amari Ndaak ci zahir te mooy ba ñu demee ba euh, noon yi bett leen bañ jàmmaarloo ba lépp ni tekk maam Cheikhu Amadou dafa taxaw mbooloo mépp wër ko fekk ca guddi ga def loo na listixaar ay nit ñu def listixaar kii la mu gis nettali na ko mu firil ko ko kii la mu gis nettali na ko mu firil ko ko am na kenn ki dañu ko man de damaa gis ginaar gu ànd ak cuujam ba yàgg mu naaw dem bàyyi cuuji geneen ginaar ñëw daja dajale cuuji boofu leen mun ko gis nga dëgg de man mii ki nga gis ginaar gi nga gis mu naaw man Cheikh Amadou la balaa jant so dootu leen ma gis ci kaw suuf waaye gi leen dajalewaat mooy sëdi mu jaahit maam amari ndaag sekk mii kii mooy mooy dajale taalibé yi mooy dajale njaboot gi moo leen di yor kenn ki ni ko man de ñetti saabu laa gis bii ñu fóote ko bam jeex bii ñu fóote ko bam des përngal bii kenn laa la gub mu ni ko yowit gis nga dëgg ndax bi nga gis mu jeex sama baaya imaamul mahdi jeexal na bi des përngal te mooy saabu bu ñu fóote bam des tuuti man cheikhu amadou la tuutee ma fi dese dootu leen ma gis bi kenn laalagul mooy mu Mujahid moom ngeen di topp ci ginnaawam ëllëg waaye ba ñu demee ba laata jant bay so ñu ni benn ngelaw moo ñëw benn kerkeraan wàcc ca maam Seexu Amadou yéeg ca ca lañ tàqali ko noppee gis maam Seexu amadu muy dem ci kaw ba benn bët mënatu koo gis euh, noonu la maam Seexu Amadou demee moo tax ñiy wax ñoo ngi leen di bàyyiloo xel yàlla ma ma defoon démb sunu maam isa yàlla nettali ni wa maa qataluuhu wa maa salabuuhu walakin shubbiha lahum isa mooma ma yàlla uh, waxoon ni kenn uh, reyu ko kenn salabu ko dañu nuróoleel waa ja doon attaqué ngir dal ci seen kaw melow isa ñu dóor ko salab ko waaye du isa yàlla waxaat ca kanam ni bal rafaahu llaahu ko yéege yàlla moo ma ko yéege woon nag yàlla moo yéege maam Seexu Amadu mu dem kenn mënulaa ku ko rey lu coow li bari bari dangay dégg ku naan diw dañ ko Seexu Amadu dañ ko rey ca Samba ku ko rey wax ko de te ci jamono yonent bi ku ñu rek xam nañ ko la rey maam Seexu Amadu kenn gisul bàmmeelam kenn mënu koo wax fii lañ ko denc ku ko mën a wax te jamono yonent bi ñañ doon rey kenn ku ci nekk mën nañ laa wax sa wan sa bàmmeel ni fii la tëdd kon nañu nangu def defu yàlla la zalika fadlullahi yutihi man yasha yàllaa koy jagleel ku ko neex mbir mi jërul jarul jërul coow nañ nangu nañu nangu ni maam maam xaadimu rasool daa julli ci géej gi yàlla ko ko jagleel nañu nangu ni maam seydina limaamu daa ñëw bëgg a dëkk àndal géej yàllaa ko ko defal na nit ñi nangu waaye nañu nangu ni maam Cheikhu Amadou yàllaa ko yéege kenn reyu ko amul amul fenn fu ñu ko denc loolu jagle la yàllaa ko def keroog nag ci la maam Amari Ndaak Seck jël sirru ba ak baatin ba keroog ba mu ko koy jox dañoo wax ni ñëpp a toog maam Cheikh Amadou baagante baagante ñetti yoon daldi woo turu maam Amari Ndaak mu jóg mu jox ko jàkk wi jox ko fital gi jox ko kaala gi kaala gi sëñ cana ba di génne gàmm gu fital yi ñuy soqi bu ñuy def wàcce téere bés booba lay fàttaliku te mooy bisu tey bii di 11 février 1875 di Samba Sadio waxtu ku fi wuutu maam Amari Ndaak ci dëkk bii mu sanc bu ñu demee ba wàcce téere jot muy gàmmu cérémonie ba balaa sëriñ bee génn dinañ ko kaala kaala gi mu génn ñu gàddul ko fital gi ak jàkk wi di ko di soqi bal ca kaw sikarkat yi dar ko di tudd yàlla di ko wanni diine jii nga jiite tey jii doon ko ci sa maam li la ko mayoon dey li ko mayoon sa baay mooy ko say maam mooy bali fital moo tax ñuy soqi fital yooyu di di ko fàttali loolu nag kum kum may diine ah di ko téye bu dëgër a dëgër loolu tax canaba mboolem lu ñuy woo ci lislaam rek ñu koy attewoo fii bari na loo xamante ni nii yàlla wax na ko ci alquran ñëpp jàng ko ñëpp gis ko du dëkk du dëkk yëpp lañ koy woo de waaye ku ñëw canaba ñu ngi koy attewoo fii ndax fii moom diine ju mat ju sell moo fi ne maam amari ko fi sampoon njaboot gi wuutu ko ba tey ji xalifa bi fi nekk bàyyi sëriñ abdourahim noona lay doxe bu gàmmu jotee buy génn kaan ba la ñuy génne fital ga moo koy dar kaala ga lay kaalawu zikarkat yi topp ko naan ko laa ilaha illa dara amul lu dul yàlla kenn nekku fi ku dul yàlla ab sëriñ nag bu tarbiya ay taalibeem jël seeni xol ak seeni ruu def ci yàlla ba mu ba mu fees dell mu jiitu ñu dar ko naan ko laa ilaha illallah amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu ngay jur njariñ ñàkki jaamu nga di jur lor illallah ku dul yàlla sëriñ booba wàcc na li mooy tarbiye ca na ba le 11 février muy sàmba Sadio boobu nag waxtu wu del siwaatee rek sunu xel dem ci ñu dajawaat ñaanalaat maam Amari Ndaak baalonte xaq gën a jàppante gën a bëggante ndax li ñu am lépp bis booba lañu ko am teraangay dëkk bii di canaba ñu di ko yilif di ko atte di ko donnante ku ñu ko may maam Amari Ndaag bu ñuy am aw tur ñu naan sëriñ canaba askanu canaba askanu cekkeen ku ñu ko may maam Amari Ndaag dund gi ñuy dund di ci tekki di ci tedd li ñuy sol mu ñuy suturaal sunu biir sunu biti lu ci teraanga ku ñu ko may maam Amary Ndack Seck kon kooka teraanga jooja bis ba mu ko jële woon mooy bisu Samba Sadio boobu maam Cheikhu amadu summeeku woon solal maam Amary Ndack ca lañ am teraanga jooja jëpp kon bu see ñu fàttaliku ko kon fii ci Thiénaba 24 ñu ngi ànd di fàttaliku maam Amary Ndack Seck di ko ñaanal yal na yàlla yokki leeram yal na yàlla gën ñoo taas ci barkeem at mu ne ñu di ko fekke sa buñu ko fekke rek muy yokute ci askan wi yep waaye di yokute ci Sénégal yep wa ma zalika ala allah bi aziz wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xula aadamiyin xilafatun malakiyatun xula aadamiyin xilafatun malakiyatun mata adrakatna li zamani baliyatun wajinaka nasko